muy un projet de 54 milliards bañ la première réunion du comité de pilotage cette année nga xamné ministre Moussa Baldé mo koy présider ak ñi ké féké won yépp ci le coordinateur pour mu am le boo xam unité de coordination bi ak aussi les jeunes nga xamné ño nek ci conseil national de la jeunesse ak les jeunes qui sont ci CNCR tay li moo koy firnde danañ parafe léegi ay documents wane dana am loo xam ne noonu koy jàppale jeunes yi pour que li nga xam ne moo nekkoon seen mébét ñu ko ñu gis ko fan ñu jël gaal yi di dem wala di dem chômage xam ne lii projet bi dina ñëw jàppale leen suqal leen tam nekk projet boo xam ne donc jeunes yi rek yi nekk ci kaw gi rek moo ko tax a jóg le professeur Moussa Baldé mingi instruire aussi Nous gëna nous matérialiser enrôlement bi signature bi baxna ci kayit waye nak mi ak avril 2021 fin avril 2021 li ñi signé ñu matérialiser ko enrôlement bi financement